tey ñuy dalal euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Pierre Mbakhane Gomis euh, jiite syndicat des transport routiers du Sénégal doon tamit président du mouvement national mbaxan la solution bi nga xam ne bokk na ci CNTS sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay de soxna voilà tey ñu waxtaanee ci cour de justice UEMOA dogal gi mu jël ay semaine a ngi nii léegi daal di nag yëkkati sanction économique yi nga xam ne teg nañ ko woon ci ndoddu Mali nekk léegi ndax oto yaa ngay dem ak dikk ci corridor Dakar Bamako bi. waaw xanaa balaa ma egg si foofu nga may ma jaale ñi nga xamante ne bii dañoo wàññeeku ci ay accident yoo xamante ni fan yii la. ñu si wax ne mbuur yii la woon. Mm-hmm. ay chauffeur yi duggoon ci oto doon tukki ñàkk ci bakkan si waru doon ñàkk ci ak yeneen ñoo xam ne ñàkk na seen bakkan ci accident yi. di mm-hmm. ñaan yàlla xam leen ay yàlla na ko yàlla jeexal di ñaan koor gi dugg. yàlla ñu ko dugg bismillah rahmaan gën ko ci alhamdulilah bu doon weeru koor jàmm yàlla nangu suñu jàmm yàlla ci xaare àjjana ñu fekk ñu baax bu euh, je pense que li may jëkk balaa may wax sax ndax bàyyi nañu bàyyi wuñu mhm. loolu dafa wartul am mhm. wartoon am te wartul am mhm. maanaa dox diggante ñaari réew ci dem ak dikk surtout ñaari réew mel ni Sénégal ak Mali bépp kuréel gu koy jël c'est parce que da ngaa xamul kon li dox diggante Mali ak Sénégal. Mhm. waaye boo xamee dox diggante Sénégal ak Mali ak dox diggante waa Mali ak waa Sénégal. Mhm. Euh, di nga am loo di saxel lu ca nekk. loolu nag dañuy bëgg a ñaaxaat rek ñi nga xamante ni bii ñoom lu ñuy dénk sañ-sañ ak kaddu. Mhm. ñu ñu fal. ñi nga xam ne nit bu la yëkkatee kaddu jox la kaddoom jox ci mën mën joxal la mhm. maanaam fal la ngay njiitam li nga war a jëkk di ak di di kenn di xel mooy njariñam tegu tegu ci kaw dëkk njariñam ci yokkuteem ak ca la muy yëngutu mhm. waaye ku ne xam na ne di dox ci diggante Sénégal ak ma ci wàllu dem dikk ci wàllu marchandise ci wàllu nit ci wàllu oto mhm. ci wàllu leneen lu munti doon nga jékkee-jékki dagg loolu dëgg-dëgg ku ne ne mittu da nga Sénégal yeewoo Sénégal dëkkoo Mali yeewoo Mali. Mhm. loolu daal mu ngi ñaax bañ ngi ñaan bañ ci am bi ñu mooy euh, demoon nañu beneen euh, lépp loo xam ne ñam oto loo xam ne ñam la muy yàqu muy denrée périssable ak itam hydrocarbures yi nga xam ne ñooy yóbbu essence ak gasoil yi mel noonu. Mhm. bàyyiwoon nañu mais loolu doyutoon mais tey itam bu ñu nee même oto yaa ngi dem oto yaa ngi ñëw encore mhm. mais des na de. maanaam li taxagul lool na mu bu njëkk sete guddi wicc mu sete woon bu njëkk dañoo mhm. bëgg nag mu set wicc wicc bañ a am benn gàkk gàkk bañ am benn tomb tilim tilim mhm. loolu nag li ñu koy bëgg a xam mooy nañu gën a bàyyi xel ci muy IMOA muy CEDEAO ni ñu fexe di def kuréel ay kuréel yoo xamante ne bii dañu mën di daje dañ ciy daje li ñëpp di si bokk te ñun aussi ak lu mënti xaw ay nit lañu ay doomi aadama lañu ay chauffeur lañu mooy su suñu métier mais ci ay nit ñuy yëngu si transport lañu jiitu ci wàllu yoon loolu tax ñu nu ay syndicaliste bootu ci ay central syndical yu waaye loolu nag bu dee dafa am état la ñuy wax ni na créé benn kuréel boo xam dañu mën ci mbéyee di waxtaan avant dara xew mm-hmm. waaye xaar ba feebar am nga soog a wuti garab fexe ba feebar bañ a am moo gën loolu it dañu koy wax ak état ni ñu ko doon mos di waxee démb ak barki démb. Mhm. bi ci des di wax ni ñi nga xam ne moo ñu mayoon li weesu de décembre. Mhm. mooy boole suñu xel boole suñu dool ci cadre unitaire des syndicats des sans-frontières. Mhm. bokk bootu ci ay santal loolu it nañu ko gën a ñoŋal ko gën a wér nañu ko sàggane. d'accord loolu itam dara mu waru ko may. ñu am mandat. Mhm. jox ak état jox xel état. Mhm. di ko yëgal taxaw nag aar suñu ñoñ état lu ñu ko jox jox xibaar lu ñu ko jox jox xalaat réew nag dañuy bu ñu waree taxaw. pour ci fulla ak fayda ak njub ak dëkk ci aar seen yooyu ak seen alal dañ koy def. d'accord ci loolu nag euh, moo tax kon cadre boobu mooy kuréel googu ñu di ko ñaax bi mooy. d'accord oui. président. Mhm. dafa am loo xamante ni bii dindi na ko ci ay jafe-jafe yoo xam ne yàggoon na fi. waaw balaa ñoo wax ci ci ci loolu euh, monsieur Gomis ma bëggoon a xam rek ndax boobaak léegi parce que euh, waxtaanoon nañ fii ñu wax ci camionneur sénégalais yi nga xam ne ñu ngi leen a bloqué euh, ca frontière Mali Sénégal tey ndax ñoom ñooñu le ñoo ngi dem di dikk. waaw xam nga dañ ba jamono am ñuy dem di dikk. Hmm. muy patienté. Hmm. ñu dem bañ ne nee ñu ne ñëpp dem di dikk waaw ne ñëpp di dem di dikk te ñëpp dañoo war dem di dikk mhm. waaye nañu fexe ba ñëpp dem di dikk comme ni ma ko waxee sànq rek sama njël benn wax mu doon la bu doon po la mu télémon bu mu am ti benn gàkk na xat te ñu bañ tee am li ci des mooy li nga xamante bi bii mooy euh, li ñu war a mën a bàyyi xel mhm. ñu ko fàtte mooy dem ak dikk dem dafa am solo dem ak dikk ci la lépp lalu kon nag dama ak dikk ci wàllu géej bi dama ak dikk ci wàllu jaww ji dama ak dikk ci wàllu tënk bi lépp dem ak dikk la kon dama leen war a bàyyi xel jox leen cër jox cër ñi nga ñoo koy ñoo ñoo yëngu waaye ak lu mënti xew man ñun mun ñoo ñàkk mukk di gërëm rajo yi télévision yi ak ñi nga xam ne ñuy ñuy bind journaux yi hmm. parce que lépp loo xam ne xew na lu war cee yëg suñu kàddu mhm. war wax ñu yëg dégguñu diggéen ñu ko yombal ba ku ñu war a li ñu war mooy yëgal état mhm. lu ñu jàpp ne yëgu ko woon xamal ko lu jàppoon ne xamu ko wan ko loo xam ne jàppoon ne gisu ko ba di ko ci xelal bu ñu dégloo te nangu loolu mooy li ñu war ci moom mhm. eh loolu nag duñ ci mas ci tay yi di ci wax waaye dem bi ak dikk bi surtout ci wàllu euh, réew ak réew mm-hmm. ñaari kuréel yi ko ŋànk ŋànk réew yu booloo mu ñu ma waa mu seedaawoo nañu leen di ñu leen di ñaax leen wax te it bu ñu toogati di waxtaan nañu ci boole ndax dem ak dikk ci la lépp na ci la ñëpp ne ci la fépp nekk kon bi ñu ci boole ñuy bokk ci xalaat yi moo gën ñuy bàyyi ba xalaat ñoom mm-hmm. bu ko ba yel mu indi coow Mhm. coow loolu amul lu ñu njëriñ am na tey ñenn ci ay chauffeur nee nañu dañ leen a war a euh, dédommager ndax yow euh, gis nga loolu na ci bu baax a baax a baax mhm. ànd na ci dañoo war dina may ci chauffeur ànd na ci dañoo war dina may transport dañoo war sax doomi aadama yi bu ñu amul wërsëg waa kay moom loolu ëpp la romb na awar mhm. xam nga tey ki jëm ci banque bi dib chauffeur bu ndaw am oto commencé benn dib transporteur dem dem ci banque bi def ko pare. lépp oto bi sax demagul mesure bi xam ku muy fayee muy fay ba ci yàgg loolu mesure bi xew. loolu problème la mais loolu heureusement am na banque yoo xam ne ñoom am nañ ci xel. ba mun a muñ mën a baale tuuti am ñoo xam ne amuñu loolu dañ naan rakkit rakkit rek lool nag ay jafe-jafe la yoo xam ne ay chevaux ñu koy dund. ay transporteurs ñu ngi koy dund ay sénégalais ñu koy dund ay maliens koy dund. kayit mm-hmm. banque Sénégal yi bari di liggéey dem lépp ñaanuñu nag may ñu leen taaraxul ngeen dañuy dem set liggéey fay loolu tam ñun ci baaxaat ñaaxaat borom banque di si ñaaxaat tam dañu mais di gën a ñaax ni suñu ministre wax ne jafe-jafe yi des na man euh, Elisabeth. Mm-hmm. mutation doon na problème ba léegi. kon euh, fu mu nekk nii yaa ngi ñuy évaluer accord yi nga xam ne moo waraloon seen grève yu métti ñu nemmeeku woon weeru décembre tey am na yi nga xam ne ba tey defaguñ ko muy mutation boobu nga ci tudd. xam nga grève boobu boo gisee mu région lu bare bare bare ba ñu taxawoon. particulier taxaw mm. camion taxaw car taxaw njaga njaay taxaw bus taxaw. Mm-hmm. tata taxaw xam nga lu ko waraloon. Mm-hmm. foole mutation bi ci la bokkoon. dëgg la fonctionnel maag chef urbain ndax ku ne am nga particulier te boo amee particulier koo gis si tur mhm. léegi nag jële ko ci tur ki la ko jaay indi ko sa tur dafa doon léegi jafe-jafe boo xam ne ñëpp a ñëpp a ngi koy jooy ñëpp koy ñaxtu ñëpp a ngi koy wax mhm. loolu dañuy ñaan président mu bàyyi ci xel ñaan nit ci transport Mansour Faye mhm. mu bàyyi ci xel ndax fexe rek ba sa njaboot bañ mer moo gën fexe sa njaboot di mer fexe ba sa njaboot euh, nopp am nooflaay moo gën seen njaboot di am coon mhm. te loolu ay coon la yoo xamante ni bii du rek opérateur bi du rek profession bi mais sénégalais bi si boobu la ak sénégalais ñoo koy dund ndax ñoo ko bokk mhm. ku jigéen day am oto góor day am oto mag day am oto ndaw day am oto da ko am da nga koo a miite te miitation doon na problème boo xamante ni daal ak itam fexe ba jot autorisation de transport loolu doy na waar boo xam ne doy waar bu doy waar mais di ñaax rek gouvernement bi ñu gën a fexe def cadre boo xam dañu may ñuy daje di waxtaan. Mhm. di xool di am ay xalaat ci jafe-jafe yi dem bi dikk bi ba muy taxi yoon noir ba muy jaga jaay muy oto suuf ba muy benn muy taxi bagage ba muy jokkal bi ba muy jaga muy tataa bi yëpp am jàmm ci dem bi ak dikk bi. loolu daal moom ñu ngi koy tànk yaa ngi gërëm njiitu réew mi ne am na lu mu def ci ay jéego lan lañ lan la ci wàllum transport bi. waaw xam nga. dafa di ca bu ñu xool ca Senghor ca Senghor mm-hmm. ñëw ba ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade ci Macky Sall la ñu mën a amee président bu def décret parce que syndical si am nañu jafe-jafe dañuy bu am jafe-jafe bi ñu am jafe-jafe liggéeykat yi nga xam ne ñoo doon ñooñu jox mandat bu ñu doon ay syndical yi ñoo am ay jafe-jafe. Mm-hmm. transporteurs yi ñoo ñoo am oto yi ñoo am ay jafe-jafe. Mm-hmm. Sénégal yi nga xam ne dañuy dem. yéeg ci oto dem di dikk ak seen marchandise ak seen alal ñu jafe-jafe wax baa nag ñooñu dañuy taxaw pour fexe ba jafe-jafe yooyu ñu amal ko saafara mhm. kon bu loolu amee ba mu def ba mu tax ñu ne gërëw def cadre unitaire bu boole ay ay yu bokk ci ay central yu bokkul ànd ko ci bul ànd ko ci ànd te ñaan yàlla mu gën a foñ ne ba yàlla def président def décret pour yu baree baree baree lu ko amoon deñ lu fi nekkutoon lu fi nekkoon tasaare lu nekkatu fi. Mhm. mooy jaadu ñu gërëm ko a ko. mais nag yow doy na ko gën a dolli na ko gën a yaatal di ubbeeku pour di wax ak ñun ñu wax ak moom. di ñu tamit ñu di ko wax muy dégg te muy bu ñu ko jox xel moom dañu ko jox xel parce que moom la ñu ko war a jox. Mhm. ñu loolu lay xaar ci mënu ko mën a téye mënu ko jëlee. Mhm. kon daal loolu mooy mbir mi di wax itam ministre bi Mansour Faye. ñu gën a ubbi ay buntam. di wax ak ñun. xanaa wax ak ñin ñi. bu ngeen ko soxlaa dafay jafe si yéen. waaw mais dema ni warta xaar sax di ko soxla. transport dafa di loo xam ne toujours ñu ngi am problème. robinet la buy xel toujours ndox maa ngi tuuru kon toujours war ngay dégg pot pour mën a am ndox. maanaam war na toujours di woote suñu waxtaan. war na toujours di ubbeeku. bu ko soxla jot ko moom it warta xaar sax di ko soxla. ndax moom dafa am fu ñu ko nekkal. comme moom mu am fu mu nekkal. nga xam fu ñu nekk nga xam fu ñu ko nekkam nag njëriñ loolu mooy ñu ubbeeku di wax ak ñun wax moom waaye wax yëpp nañ ci mooy si politique nag politique dama ànd ak nguur da bañ dëgg wala politique ba dama contre nguur bay bañ dëgg parce ci am solo mooy képp suñu wër bi wax nañu wax dëgg ngir askan wi wax dëgg ngir jëriñu askan wi loolu daal dañu ko ci moytu te itam lépp loo xam ne ñu mu ngi yàqu ñaare te bari loo xam ne politique moo koy def mais xaw da ngay mën a ànd nguur wala nga contre nguur. Mhm. boo àndee nguur mën na jur mën na jur safaan se waa boo contre nguur mën na gën a jur safaan say waa kër ndax état nguur moom boo ànd moom rek mu ngi def ay pexe yoo xam ne dañuy doo ko mën a indil benn gàllankoor. d'accord kon nag ñun ay syndicats lañu. Mhm. nañu maa ngi ñaan tamit kabala yëpp ñu maandu jéemal suñu bopp ci fii ne ndax itam. tubaab laa dégg mu naan on peut parti. et parti oui. doon fi ñuy doon fi àtte. Mhm. kon nañu doon si bu fayda. ànd ak ñu ci dëgg ànd ak état bi état bi ànd ak ñu ci dëgg ñu ci dëgg. bu ko defee lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Pierre Mbakhane Gomis.